Mangi ngi dellu si en tant que ministre de l'enseignement supérieur mu yore njàng njàng mu kawe mi di wax ci orienté orientation bachelier ñi nga xam ne ñoo am bac 2020 dañoo gis ne ay fan yu nekk wax day génn ñu gis ko ci journaux yeeg affaire ñuy wax ne am bachelier ñu orienté wul te loolu buñ ko xoolee ci effort yi nga xam ne communauté universitaire bi def gouvernement bi def ko président joxe orientation ñu def sen luñu mënon yépp ba jéem sax luñu mënul pour que kuy bachelier 2020 boo laté dem fenn ci université yi ñu yombal la lako ba nga am ko amul réew yu koy defe ni koy Sénégal di ñu def effort yooyu te effort yooyu ni mu réyee mooy ci ñaari at université yi bi se gouvernement du Sénégal jàppee ne dootul fayal étudiant yóbbu ko ci école privée daf koy yóbbu ci université yi ci ñaari at rekk université yi taxawaay seen taxawaay yóbbu nañu ci li ñu doon jël ci at ci benn at bu ñu doon jël benn yokk nañ ko ba mu nekk ñaar dañoo jógee ci fanweeri junni ak ñaar àgg ci juróom-benn fukki junni ak ñaar effort yu mel noonu bu ko nit defee dañ ko war a sant mais du topp ci ginnaawam di ñëw di ko ne guddeeg bëccëg noo li nga def am na des na des na des na mbaa bu ñu toogee ñaari nit ñaari étudiant ñett mbaa li ci gën a bëri ci étudiant juróom-ñaari fukki étudiant lañ fi gis ñu ñëw te ñoom ñëpp ñu wane ne ñoom bokkuñu ci ñu ñu waroon orienté parce que laajuñu ko mbaa dañ ko laaj ba pare génn ci biir mbaa ñu leen ñu bañ a nangu li ñu leen bu ñu waxee ñu bëgg a yàq liggéey bu bari boobu mu nar a continuer ci am fii man génn naa fi ñaari yoon di leen ne orienté nañu ñëpp et képp ku nga xam ne respecté nga yoon bi te orienté wul ñëwul dañ may ne am na plateforme junni ak ñeenti téeméeri étudiants yu ñu orienté wul deux mille vingt mbaa deux mille dix-neuf bu ci nekk ñaar chiffres yooyu la ñuy joxe. mais musuma leen man musuma gis plateforme bi kenn gisul plateforme bi mais ku fi ñëw sa tour won nañ la ci amul kenn ku fi ñëw nañu moom orienté wuñu ba won ñu ne orienté te buñ la tonto sa numéro parce que da ngay ñëw joxe sa numéro téléphone sa numéro table sa numéro fan bourgerie bi nga nekk wax ñu jox la ne la yow bokkoon nga ci mais da nga mbaa bokkoo ci mbaa bokkoon nga ci mais da ngaa dem ba ci biir nga taxaw mbaa dañ laa orienté liñ la orienté nga bañ ko loolu mënuñu si dara donc il faut ñu xam ne orientation day jeex mënuñu toog di orienter ay ati ati at gouvernement du Sénégal mënul na yeewu ne damay orienter li ma mën li ma mënul du ma la orienter réewu àdduna bi yëpp foofu lañ jëm dañuy orienter ñu ñu mën li ñu mënul duñ ko orienter mbaa ñu ne tant de place la ñu am tant de place yi la ñuy jël bu feesee fees na mais gouvernement du Sénégal ñëw ne moom day def ay pexem ànd ceeg communauté universitaire bi bu ñu mënee yokk fii dara ñu yokk bu ñu mënee may fexe ba ñu orienté ñëpp ku ci bokkul buñ la orienté wul amul dara loo ci wax mais bokkoo ci orienté wuñ la nga yeewu ne léegi comme nee nañu dañuy orienté ñëpp ñoom def nañ li doon def ba pare naa taxaw ne man kenn orienté wu nañ ma jàppale. mbaa nga dem làkkatu ci ay activist parce que lii aussi damay jàpp ne mënul doon revendication activiste enseignement supérieur activiste amul fa lu fay def. parce que pour nga wax ci loolu dangay ngay xam li ngay def yeewu rek ne man damay yeewu rek di wax non mënul nekk maintenant li may wax mooy orienté nañ ñëpp ci ni mu waree amul kenn ko ñu orienté wul te nañu xam ne orientation yi jeex na gouvernement du Sénégal président nee na nañu orienté ñëpp ku ko def demande nee nañ leen def leen demande ñoom ñëpp def nañ leen demande orienté nañ leen te amul benn étudiant bu demandé bu ñu orienté wul loolu étudiant bu ko wanati fenn ñu wane ko mais ku fi ñëwati tamit di trouble dina fekk ne orienté nañ la bu ñu la jàppee ah dina am lu ñu def ak yow parce que du ñu liggéey fii di avancé nit ñi di ñëw ne dañuy laqatu ci yeneen di ko parce que problème bi li ma ci xam mooy ñoom seen bopp dañoo ne léegi xam nañ ne université yi fees na nañ lañ ko xamee ñoom ñoom ñooy déterminer université yi fees na mais université yi fees na kenn ñu fa orienté mais nañ ñu orienté xam nga loolu bu ñu ko méngalee ak li nga xam ne man dama koy jot ci ay école privée di ma ne ñoom pare nañu pour jël étudiants yooyu méngale ko décision bi gouvernement bi ne loolu dootul amati dañoo ñi ñu doon orienté ci école privée yi dootuñu leen oriente ñu gis ay xeex di wax ne am na nit ñu xamul kenn gisu leen ñu ñu orienté wul loolu baaxul te lu ñu war a bàyyi la en tout cas orienté nañ ñëpp te aljuma bi ñu jëm dinañu génne liste bi def ko ci plateforme Campusen pour ñëpp gis étudiant bu nekk fan lañ la orienté. bu fekkee def nga demande ku deful demande ñu wane la yow mii defewoo demande ku def demande ba ci biir nga bàyyi ñu ne la yow dem nga ba ci biir fii nga bàyyee te tel jour nga ko bàyyi comme sax affaire bi leer